ñun journalistes yi sax dañ ñuy menacé dañuy sànni ay xeer mais comme suñu liggéey la ñuy def Thank you. seen euh, Grand Yoff tamit euh, mu ngi nii ñoomit euh, jël nañ ci ci situation bi tamit gis nga jeunes yi ñoom tamit nee nañu il n'en a gis nga nit ñaa ngi ci kaw du situation boo xamante ni que dëgg-dëgg jar na wax gis nga les populations ñoo ngi dee doyal nañu couvre-feu bi doy na ça se passe partout partout partout au Sénégal situation bu situation bu xaw a un peu la gis nga ni mu amee woon mu Touba noonu la amee tey ñaari tali gis nga amee ko tey grave gis nga mu ngi noonu les populations commencé génn di taal ay puno xaw ma nag situation bi lan moo ko waral waaye ñoom li ñuy laaj rek mooy la levée du couvre-feu nee nañu dañoo sonn liggéeyatuñu génnatuñu loolu nak du samay wax gis ngeen la police est en train de se préparer ñom tamit ñu ngi nale ci buntu commissariat bi dégg nga boo ngi ñew partout nga li ñuy wax dégg nga lu ñuy wax dañoo ci couvre-feu bi dañoo sonn gis nga nit ngi ci kaw étage ci kaw terrasse yi taxaw jàpp seen ñaamur les hommes du commissaire Sarr sont en se préparer gis nga waaw gis nga gaa ngi continuer yaa ngi dégg ku kuwu lacrymogène yooyu kuwu lacrymo yi force restera à la loi gis nga ñu ngi door ay lacrymo ñu ngi door ay lacrymo partout yéen a ngi dégg noonu kuu yi yéen a ngi dégg noonu kuu yi gis nga la police aussi li am Grand Yoff actuellement moo am ñaari tali mooy comme li amoon Touba gis nga mu ngi noonu gars dañoo mujj génne gars dañoo mujj génne les gros ñoom tamit pour que force restera à la loi gis ñu ngi noonu gis ñu ngi noonu ñu ngi karanteeg xale yi ci biir mbedd yi daaxante ñoom gis ngeen mu ngi noonu ba tey les forces d'ordre sont là essayer de essayer de jéem maintenir euh, la situation euh, je pense bien que c'est les hommes du commissaire sar bu commissariat bu bu Grand Yoff parce que zone bi seen zone la gis ngeen euh, ñëw nañ ñoom tamit ci benn nombre bu am solo appuyé ak ñi nga xam ne groupe mobile d'intervention bu GMI ñoom itamit ñëw génne aussi les gros moyens mu ngi noonu ñu ngi jéem def le tout daal pour jéem a fay li nga xamante ne que moom mooy lakk gi quoi. moom mooy lak gi Grand Yoff comme aussi ñaari tali Touba ñu ngi ñuy wax ni que actuellement Tamba mu ngi noonu